liñ ko préparé bu ñëw na bëree loolu man liñ ma préparé su ma ñëw loolu lay bëri. mais du moom moo may wax ni may bëri. ëmb looy tontu foofu. waaw waaw nga jàpp ci wàccaay yaa ngi ci wàccaay ku ne di liggéey ak sa staff. rendez vous bi le 27 la dégg nga. waaw le 27 moom ku ñëw di nga kontaan. ku ñëw di nga kontaan waaw di nga kontaan parce moom jàmbaar la. waaw Bombardier moom ku ne xam na ni. jàmbaar seen war a bëreeg jàmbaar lu ko ciy xaar. ah waaw li rek ñi ñaan yàlla may ñu ndam. mooy lan ci biir bés boobu ah ci rundaanaa mooy def lu leer nañu rek. def lu leer nañu te ñu koy ñaan yàlla suñu borom yàlla ñu yàlla may ndam. ku dina kontaan. incha allah ci kàttanu yàlla amateur yi du ñu mer ci kàttanu yàlla incha allah. gas dama ko ko wax dama ni ko li ma gënoon a bëgg sama àdduna la ma defal mooy revanche bii. revanche bi dama ko bëggoon trop moom xam na ni bëggoon naa ko trop xam na loolu. Mm. kon Gaston ñu ngi lay man de maa ngi lay sant di gërëm. Mm, mm. ni mu ko waxee nii lu leer la wax amateur yi bu ñëwee dinañ bëgg lool. ndax xam naa ni jàmbaar la. Mhm. du daw. parce que nee na combat yi xaat yëpp moo ko bari mhm. loolu la wax. waaw moo tax ma xam ni le 27 incha allah rabbi. Mhm. amateur dinañ kontaan waaw. ëmb nee na Gaston li mu gënoon bëgg ci àddunaam la ko defal muy revanche bi. waaw moom boo xam ne dama koy comprendre parce que ñamagum xamul lu may saf. ngeen daje woon war a daje woon. non dañoo daje woon ñamagum xamul lu may xamul xamuñu woon moom moom moom mm-hmm. lu may xam bëgg dégg parce que man na bëgg waxoo bu toog mm-hmm. ok dafa ne lu mu gën a bëgg lañ ko defal nest mm-hmm. kon moom jàpp nañ lee faqastalu moo tax mën a yëpp ñam ko moom conseil xamagul lu may saf xamul ni kaani laay saf xamul lu may saf jour ji lay comprendre combat bu neex maa ko wax mu ne xamagoo lu muy saf le 27 xam nga bële combat bu neexul li ma li ma wax laa koy répété combat bi dafa gaaw ba ku nekk xamul sa morom lu muy saf. xaj na moom ma lu muy saf mais moom it xamagul lan lay saf. parce que li ñu bëggoon a jëflante dëgg-dëgg. combat pass defuñu ko. xam naa li ngay saf de. non xam nga ko wax non non xam nga ko da nga ne da nga ne man su ma sañoon dañuy taxaw bëre ma ne ko bés boobaa. soo daanoo da ngay laaj lu xew. balaa ngaa tàng da ngay bii paa daal li dafay bàyyi. bi par daal lii la fay bàyyi. kon rek waaw la fay sa soreetul waaw. boobu mu ngi xoolal. mu ngi mu ngi expliqué même même commentaire mënu ko. Hmm. combat boobu loolu loolu sax mu ginnaaw. combat boobu suñu ginnaaw mun naa la ko commentaire le 27 non mun naa la commentaire la dañuy jël ah, hmm. bii. le 27 ma ñor. arène nationale arène nationale. moo la ñor incha allah rabbi. kon su ma déggee bombardier dégmal bés bu ko ci ñor war ci am ban ak ñëwee ci nan Pabalin waaw gan gi moo la gën a xam ne dañ jëflante mag moom moom xam na loolu bu baax te bu ma ko waxee war na ko gëm jëflante day am parce que loog na avance ma loog avance mm-hmm. jëflante moom day am mm-hmm. mais jëflante ci nan jëflante ci nan moo lay tontu foofu mais jë jëflante comme ay góor yàlla ki dafa bëgg combat bu métti te man dama bëgg lu métti lu métti mooy su ma ko nee ci biir bëri lépp xeex ak bëre su ma ko nee dinañ jëflante dinañ jëflante moom xam na lool bu baax moo wax gën a xam ama Bombardier nee a xeex ak bëre bu ne di ngeen jëflante di ngeen jëflante yaa ko gën a xam. Ah, waaye le 27 sorewul. mën a wax mënoo woo. waxtu di jëf lu bëri. daa ko wax. bàyyi si li ngay def nga naan mënumaa wax waaye yow. ah boo waxee dañ ko bàyyi mu wax rek. dañ ko bàyyi mu wax waaw le 27 sorewul quoi. waaw dañ <laughs> kenn dàqu koo wax na wax li xam nga fii wax lañ fiy def. ay mais arène ba kenn du fa wax. Mm-hmm. arène ba amul ay micro tëj bar barrières yi dóorante ko ña fa nekk. Mm-hmm. waxe ko fi indi man wax ma fi indi dañu wax. Mm-hmm. Gaston daf ñoo fay daf ko fay fay ma. man de combat bu ma ñor la. yow xanaa sa ñaar géwél la. xanaa dafa mel dafa la jàngal kii de. man da nga pànk quoi saa bi laa yor. Ah, <laughs> ak ca mbër ñu ko trop quoi ñun géej li dañoo garaaw ci di quoi ñu man géwél géwél ma saf si sàpp man may man may fréquenté kër kër kër kër kër Doudou Mbaye eh. ah da ngay fréquenté saf si saf si sàpp nga naan ma ah, man sama deret la nag ma ne loolu dina neex xoolal mm. walaay dinañ jëflante kii mm-hmm. lu leer laa la ko di jëflante moom Ama dama gis Bombardier dafa taxaw ci wàllu boobu wax ko waxaat ko ne wallaay di ngeen jëflante. Mm-hmm. jëflante boobu nga déggee ko nan ak moom it lu ko ci xaar. ah damay ragal de si incha allah ci kàttan yàlla est bii di gën a gaaw. combat bi gën a gaaw. Ah, bi ngeen bëri yàlla baax na. bon ndax combat moom jàmbaar la moom day ñëw def. day bëri bu gënee gaaw noonu amateur yi duñ kontaan. kon xanaa nga rasu. mën na nekk amateur yi dama bëgg yan dañ dañ bëgg lii dafa gaaw bii paase dafa gaaw trop. bu bu meloon duñ bëgg xoolal jàmbaar nañu jëflante rek amateur yi kontaan. waaw xam nga baax li ma la wax. Ah, baax na. dana xam nga lim la wax. <laughs> waaw yàlla baax na man mu ne wu ma ko. ayca sama gars yi am na it suñu rek taskatu xibaar yoo xam ne ñu ngi ci salle bi ñoom it euh, war na nu am loo xam ne dinañu ko àddu ci ñaari mbër yi mu aajowu ci wàccaay bi ak fi nu toll Fadam ñoo lay nuyu. moom it sunu frère la bokk ci làmb di ci def ay jéego Fadam ñaari champion yi war a daje le 27 nga jàkkaarloog ñoom ko defee euh, fi nu toll ak li nga gis ci ñoom boo amee question boo leen di posé ba ngi noonu acca mbër mën na ci jot Bombardier Eumeu Sène le 27 mars Gasso Production arène nationale drapeau Matarba Walf TV salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salaam ñu ngi nuyu axlu làmb yëpp di leen ñaanal jàmm ñëpp ñëpp di ñaanal réew mi nga xam ne ni tey jii seen xel yëpp ñu ngi ziar général bi nga xam ne nii mooy am Tiwaawan suba te ñëpp ci nit ñi ñu ngi ciy waajal dem suba di wax chauffeur yi nga xam ne ni tey jii ñu ngi jëm ci yoonu Tiwaawan bi nañu def client ay nànk te xam ne dëkk bañ jëm dëkku ñaanukaay la réew mi dafa soxla bés yu mel noonu te tamit suñu ñaari mag yi maa ngi leen ñaan balaa ñoo pare ci seen communication mm. nañu ñaanal bébé Diène ak suñu papa Gaston Mbengue ñu ñaanal bébé jéen mi nga xam ne nii tey jii caabi di ko fétti ginnaaw te daa juumoon te àdduna képp koo mënti gis ci àdduna def nga ci àdduna loo xam ne nii mës ngaa juum suñu borom a feeñal rek ak mu ñàkk bañ feeñal nañ ko ñaanal yàlla ñu am mu am jéggal te suñu papa Gaston Mbengue ak lu làmb yow la yaakaar ci loolu bébé jéen yaakaaru làmb la mm. te làmb da ko soxla ñu ngi koy ñaanal yéen ñëpp ñi nga xam ne nii yéen a làmb Pape Aline waaw Fadam ñi xam làmb rek lay waxal. boo xoolee su ma njëkkee ci Eumeu Sène. boo xoolee état de forme bii mu indi ci làmb gën ñu ko indi ci làmb. athlète la indi ci làmb. te tey su fekkoon man dama bokk ci staffu Eumeu Sène tey jii man fa dam combat bu rapide lay bëree te duñu arrière te atelier la koy bëree. dama dégg na ndax boo xoolee Eumeu Sène assisam da ko liggéey ci boo xoolee ci vidéo yi ci moom Aziz Sam da cee travaillé bu baax a baax a baax kon Eumeu seen tey jii combat bi song bokk na ci tey jii li ko xam ne tey jii mooy déterminer combat ndax am na capacité bëre boo xam ne ni tey jii mën naa bëri ci ñetti song yoo xam ne ni bokkul ci benn cong la koy song mën naa song ci tànk xaajale ko ci ndigg jàpp ngeen ba xar jëppit wala mu def leneen te loolu bëri may na ko làmb ji ci loolu Serigne Dia Bombardier nag tey ji su ma koy noonu ci bés ba garde laa koy digal ak ak tëru moom bombardier waaw garde ak tëru ak tëru ndax tëru kuy song lañ koy def te boo tëroo da ngay yuutu ngemb ama Sène nag su ma koy noonu du ma bàyyi bombardier jàpp ngembam du ma ànd ci moom bombardier fekk jàpp ngemb Eumeu seen bu mu xeex bu mu bëri ndax mu bëreem foofu lay tijjeekoo làmb nag dafa naqaree wax leen loo ma ci laaj pare naa pour dugg ci yow ñu toj làmb gën ci itam Sénégal yi jëriñu ci ñoom ñaar seen combat war na mën a neex foofu nga tes dafa am solo nañ leen ñu tontu foofu Eumeu dégg nga Fadam Bomb dégg nga Fadam waaw dégg naa ko nag. Mhm. dégg naa ko baax waaye li muy xam-xam la. xam-xam la waaw nangu nañu ci xam-xamam. waaw vraiment ku am ku am dégg. nekk waaw nekk bërikat li nga xam fu muy waxee. waaw moom loo dégg foofu. mais Faram yàgg naa ko wax téere lay wax c'est-à-dire que lamb moo naqaree defee ay analyse mhm. parce que am na nooy analyser dañ naan dafa far. Mhm. mais moom li mu santi rek lay wax. mais lamb daal la wax. lamb la wax waaw la wax waaw. Faram loolu am na solo. non du ma a dumaat feneen. ndax ah, ñoom ñaar lii ma lay wax nii. kenn du ci génn ci ñoom ñaar ci loolu. kenn du ci te bés bokk na ci seen i technique favori yi nga xam ne ni moo nekk ci ñoom. Mhm. Eumeu Sène kenn doon ko jàngal bëri ci làmb. dootul daanati jël mbër nu mu daane wun mbër. Mhm. jàngal bëri tamit nit mënut a jàng mënu fee defati li mu fi defatoon. Mhm. Bombardier ba si gën a mag ñi gën a yaakaar ci làmb ci ndakaaru ñoom la daan ñibbeeg ñoom mbuur. kon tamit kenn dootu ko ndam dootu ko safati. daan Eumeu Sène am na fu mu koy yóbbu ci làmb waaye Eumeu Sène daa war a daan Bombardier ndax tey jii daa am ay combat ko war a rectifier te daan Bombardier mooy tax mu am ko mhm. kon tey jii maa ngi ñaanal ak lu làmb yëpp di ñaanal réew mi jàmm ndax réew mi kuy ku xone mënoo may sa bopp jàmm ñaan jàmm rek la jig mhm. Père Gaston li ñu la waxoon tamit dimbali ñu ci bébé jiyéen ñu dajaloon ci làmb ñi maasaloon ci làmb ñu ngi commencé dégg daal ci làmb te tey jii làmb moo kaaw sisee làmb dañ leen a war a dimbale mhm. juum mënta ñàkk ci làmb juum mënta ñàkk ci ndaw waaye juum juumaat la ñuy wax ñu ngi doog a juum ci làmb ne leen àdduna bi jéggal ñu dellu siwaat ci làmb ndax ay xale seen waajur ci làmb rek leen yaakaar asalaamaaleykum wa yi rafet na fadam jërëjëf noonu nga ko waxee ci ñooñu nga xam ne ci ñun lañu bokk caabi féete leen ginnaaw yàlla na yàlla teggi nattu boobu moom mboolem ñi fa ne muy bébé jéen muy kaaw siise kon waa làmb war fa kàlla sunuy rakk la du sunuy jarbaat la ñi ngi leen di bàyyi xel doon ci mën rek nan ko ci def kaaw Cissé dama dégganteeg waajuram bu jigéen mu ne ma Pape Aline dama tawat te kaaw mooy sama yaakaar na ma ci làmb bàyyi xel may ma ci loxo kon yàlla yàlla teggi natt yooyu suñu mbokku taskatu xibaar yi ñu leen di jox seen cër ak seen wàccuwaay bu fekkee am na ku am question bu mu bëgg a posé ñaari bëri muy Bombardier muy Eumeu seen par rapport ak tàkkusaan gi nu dëgmal muy le 27 mars arène national sama gars ñi amul ku ci am question bu mu bëgg a posé ñu leen di jox seen cër ak seen wàccuwaay kenn kum ci doon ku ci ne daje ëmb seen bombardier ay ca mbër sama gaañ yi may ko mu ñëw aca waaw bismillah tur nan la yow la ñuy déglu waaw bismillah aca waaw salaamaaleykum euh, maa ngi nuyu ñu fi toog yëpp euh, mm. man maa ngi tudd Penda Thiam mm. euh, journaliste chez Post Afrique et Gaston Production mm. bon man fu ma bëggoon ñëw rek mooy par rapport ak Eumeu Sène dañoo gis ni que temps yi dafa changer technique de communication ndax bu muy jël bombardier daf dañoo seetlu woon ni que dafa arrêté woon di wane lépp lu muy entraîné mais temps yi dañ ko gisaat mu muy dugalaat Euh, entraînement yi muy def ci biir réseaux sociaux yi ñu gis Eumeu Sène muy defar assise bi euh, di yéeg duni di yéeg di wàcc di tingoom ay nit di def aller ak retour léegi loolu ñu bëggoon xam euh, lan moo ko waral léegi ma dem nag ci ki nga xamante ne moom mooy bombardier bombardier ni ma ko tuddee léegi nii Eumeu Sène moom mi ngi travailler assise bi parce que nit ki tamit boo amee benn poids bi nga nekk poids lourd il faut que nga mën a travailler sa euh, support mooy tànk yi lu lay téye euh, est-ce que yow tamit yaa ngi travailler lu mel noonu maa ngi leen di jaajëfal. xam nga looy tontu foofu dafa gis ni combat bi am na lu ci yees ci préparation ak wàccaay bari na loo doon nëbb te yaa ngi koy fësal. non du loolu benn boy bi ñu Abdou Ndiaye mu ne sama fils moom mooy jékki-jékki rek génne. Euh, kii bi quoi image ko nuyu Abdou Ndiaye. vidéo yi waaw mooy jékki-jékki rek génnee vidéo yi quoi du ma ko sax yëg. waaw moom suma fils la quoi suma taaw la. ci liggéey bi la leen di fekk entraînement waaw moom mooy jékki mhm. noonu la demee. voilà. bon bu nee na nga am adversaire boo xam ne mu ngi ci wàccaay di jëf lu ni mel loolu ban gis-gis nga ci am ak yow it euh, noo koy waajale non méthode entraînement ku ne ak adversaire bi nga am rek ni ngi koy préparé. Mhm. kii ni ma koy préparé du bokk moom daal mu ngi suñu xam di liggéey maa ngi sama ruq di li dal sama xel ni moom may ndam maa ngi ci mm-hmm. incha allah ok leeral bi am na solo am na ku bëgg a poser question aca waaw bismillah yow la ñuy déglu Modou Anta sans frontière moom du ñu koy nuyu suñu rakk la maa lay nuyu bu baax a baax di la siyaar di mm-hmm. siyaar mbooloo bi fi teew yëpp maa leen di bëggee bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay waaw sama question yaakaar naa ne benn bi pour Bombardier la benn bi pour Eumeu Sène beneen bi ci des King Junior muy makan suma waay maa ngi koy bëggee bu baax a baax bi may laaj Bombardier mooy que dafa ne woon dina ñëw Dakar boo yi fi gën a ës ñetti boo yi fi gën a ës mu daan leen. li ngay laaj Bombardier. waaw première question pour Bombardier. Mhm. nee na dafa ñëw Dakar pour boo yi gën a ës ñett yi mu daan leen première mu bëri ceeg Modou Lo 2015 daan ko deuxième mu bëri ceeg Balla Gaye 2013 daan ko. Mhm. troisième bi mu bëreeg Eumeu Sène mi taxaw 28 juillet 2019 Eumeu daan ko. Mhm. ndax la mu waxan ma nga ca ba wala fan la ci toll ak la mu waxaan bor bi mu amee waa Mbour est que war na ko rectifier pare na pour rectifier ko ci digganteem ak Eumeu Sène muy le 27 bi ñu dëgmal bi may laaj Eumeu Sène mooy question bi ma koy laaj comme boobu bombardier bi du sore Balla Gaye 2 dafa daan ki nga xamante dafa daan Balla Gaye 2 deux fois daan ki nga xaman mooy bombardier mi boole Modou ak Balla Gaye daan est-ce que moom pare na pour daan bombardier deuxième fois. wane ne Balla Gaye ak Modou ba tey man maay la première parce que ba tey mënuñoo xam Balla Gaye Eumeu seen Modou Lo jee kan mooy numéro en loolu mooy question pour Eumeu Sène bi may laaj pour Makan làmb ji passé gis nañ ci ay surprise gis nañ ci ay innovation côté bee yi fan la toll ndax amateurs yi mën nañ ko xam ak innovation ak ci xeeti surprise lan ngeen di preel li nga xamante bi ni mooy amateurs yi jërëjëf Papa Aline jërëjëf aca sama gars yi lu waaw question bi man laaj nañ ma ko lu bëree bëri. Hmm. tey laa ko gën a wax mooy que Eumeu Sène moom si dese woon. Hmm. moo ma daan ma ni su fekkoon ne dama bàyyi. Hmm. kon day dem ma dem. ma yàlla dafa namm ni li ma waxoon dafa nar a antu moo tax ñu dajawaat man li ma gën mooy incha rab rabbi le 27 dama koy daan mu nekk incha allah. loolu laa gëm. Eumeu gëm-gëm moom la wax Bombardier le 27 waaw gëm-gëm la wax mais ñu yàlla suñu borom may ñu dem incha allah. ci mm. kàttan yàlla. Mm. Ah. te sànq ci biir waxtaan dama ni jeexaat yeggale gu ma ba gis garee dama jeexaat. waaw damay tontu boobu dafa ne. Eh, ku nekk waaw ku la. deux waaw. waaw parce que dañoo dañuy xëccoo xaw ma pii xaw ma wax Bombardier dafa daan Modou Lo. Mm-hmm. daan Balla Gaye deux fois. Mm-hmm. ñu ñu daan suñu biir. ngeen daanante. ma daan Balla Gaye deux fois. Modou Lo daan ma deux fois. Mm-hmm. ok. Mm-hmm. Balla Gaye ak Modou Lo ba ñu daan dee xam ku nekk six points la am. Mm-hmm. Bombardier daan leen ma daan Bombardier comme neuf points la am. pour moom mu mën a ñu mën a tàkkal ko côté boobu. <laughs> yaa tàkkaloo ba toog yaa ci neuf points eh, mais Bombardier day jël comme. compteur bi moom moo calculé ba toll ci 9 points. ni nga ko arrangé rek la calculé. 9 ko arrangé la rek. waaw xam nga ni nga ko ni nga ko arrangé noonu la ko calculé. ok non nu nekk benn carré boo xam ni. Mhm. loolu mooy carré d'as. waaw dañ nekk si dafa na calculé. Mhm. xam nga tax mu naqaree calculé. waaw euh, bi dafay jafe. Mhm. dafa daan Balla Gaye fois. waaw moom ma daan ko deux fois. moom mu daan ma. Modou Lo daan ko deux fois. man ma daan Modou Lo. kon day naqaree calculer man su ma ko jëlee noonu ma maa ngi neuf points. non daan neuf points. ah kay xam ah, te dama lay tànn incha allah dama ne. tey bu ñu ko calculer noonu dafay jaxasoo. da lay jaxasoo waaw ah, parce que yow. Ah. ki la daan. man maa ko daan. waaw yow yaa yow yaa ma daan man ma daan ki la daan. neuf points la. ak sama gars yi bu déglu ko waaw. ku la ma wax dama ni. boo ko calculer ni mu la arrangé yow 9 points ngay am. man su ma ko calculé ni kan moo la daan yow. man Modou boo nee yow yaa da koy calculer ñu la arrangé parce que 9 nga bëgg la am naa 9 points. am na am na am na. ak gën ko ko tojal. su ko defee 9 points. saa daa a defee numéro 9 la xam. daa def ne loolu da nga yaakaar ne ah. laa am. Bombardier kon 9 ngay dajeel nee na 9. 9 kii daan kii 9 9 ñu war a dajeel ñaari yoon c'est 6 daan kee daan kii muy 9 points kii daan kële ñaari yoon daan keneen ko muy le 27. ñu xool kan mooy am. bu ñu nekk neuf neuf rek maa ko daan. ah bu ñu nekk neuf neuf rek maa ko daan moom daan. yow da ngaa daan yow da ngaa daan. Ah, deux fois. ça fait six points. waaw baax na jàpp ko foofu waaye nag jëloon jàpp ko foofu ba jour. neuf neuf la. neuf neuf la. ok.